Samba Ndong nuyu naa la. ñu ngi fay bu baax madame Moreau ñu ngi fay bu baax. macha euh, Samba Ndong nga nekk euh, nga bokk ci Alliance pour la République nekk aussi membre du Haut Conseil des collectivités territoriales euh, démb naka nga gisee discours bi nga xam ne njiitu réew mi tenir na ko devant le khalife général des Mourides doon amal aussi discours boo xam ne tàggatoo muy euh, wane ni bi mooy dernier màggalam euh, en tant que euh, président de la République du Sénégal naka nga gisee kàddu yi nga xam ne son excellence yëkkati na ko foofu ca Touba. waaw avant tout d'abord damay ñaanal la may ko gudd fan ak wér ak wérle ñaanal ko xalif général Sénégal yëpp di ñaanal aussi ñi nga xam ne dañuy dem magal Touba yal na leen yóbbu yal na yóbbu ci jàmm ak salaam ñu yóbbu seeg jàmm ak salaam te yal na lépp lu ñu fay ñaan ci jàmm ak salaam mu sax dàkk te nekk lu am euh, di wax ne président Macky Sall nit ku baax la nit ku yëwén la nit koo xamante ne Sénégal ku am yar la nit am tegin la looloo tax aussi respect bi nga xam ne xalif général am ko ci moom du mos mu def na décision boo xamante ne loolu histoire politique Sénégal mosu fee am mooy ke nga xam ne yaay président de la République dem ne bu bogatu bogatuma briguer un second kenn bogatuma mais naa leen jàppale naa leen choisiral donc mu nekk discours boo xamante ne tàggatoo la mais discours boo xamante ne dafa sedd xool d'une part discours boo xamante ne day kii dafa dafa dafa dafa remplir fonction non seulement mais dafa dafa histoire Sénégal taarix Sénégal indi boo bu at di yëpp Macky lay doon ci wàllum présidence ci wàllum gestion ci wàllum relation ak euh, kilifa diine ak kilifa aaday donc lu ma koy ñaanal rek mooy ne képp koo xamante moom la choisir na ñëpp ànd moom jàppale ko parce que jàppale ko mooy jàppale Sénégal parce que président Macky Sall vision ak euh, bëgg-bëgg nu tabaxee Sénégal kenn mosul xalaat doon ne seen xarxan Sénégal dina mel noonu donc di koy ñaanal rek jàmm ak salaam di koy wax ne nag ñun moom ay ndawam lañ ay doomam lañ te dañuy continuer di engage ci ginnaawam ba bés ba fépp fu muy yem. voilà ñu gis ne aussi si discours bi euh, président Sall mi ngi wax ni am na daal njàqare euh, ci après régime am surtout nag soxal ni ñu war a euh, pétrole bi ak gaz bi nga xam ne moo am si réew mi moom nag mi ngi wane ni am na si daal njàqare day ragal loolu taal réew mi te booba doo du ko fi fekk en tout cas waaw xam nga xam nga pétrole nag dafa nekk loo xamante ne nit ñi dañuy wax ne dafay indi ay ci dëkk pétrole boobu la président Macky Sall lu mu ko doon waxee pétrole war mën a indi ay mais indi jàmm ak développement ak koom-koomu réew ci loolu la war a dox te moom loolu looloo taxoon sax ñu def ñu modifier code pétrolier bi mais je pense que euh, choix bi nga xam ne moom lay choisir nit ñi suñ ci jàpp loolu war na mën a ñàkk parce que képp koo xamante choisir nañ la nga jubboog homme politique yi jubboog kalifa diine jubboog kalifa aaday jubboog ak ak société civile yaakaar naa ne loolu du am problème mais pétrole dafa da am ay firme internationale yoo xamante dañuy ñëw nga xam ne moom moo yoo xamante dañuy bëgg a taal Sénégal dëkk dëkk pour que du am stabilité loolu tax may lancer appel may ñaan ñëpp ñi nga xam ne Sénégal lañ bu leen nangu kenn manipuler leen di ngeen état wala di attaquer président wala di bugg a Sénégal parce Sénégal ñu ñëpp a ko bokk ñu ñëpp a ko moom kenn waru participer ci lu koy yàq wala ci lu koy taal mais nañ participer ci lu koy defar ci lu koy développer ci lu koy tabax mu jëm kanam loolu daal mooy appel bi nga xam ne moom lay ñaan Sénégal suñ ko defee rek inquiétude président mën na mën na am du du du du du du du loolu du Sénégal parce que président visionnaire la day gis daa xam daa yàgg ci état xam nu état di doxee xam nu relation internationale di doxee donc loolu tax muy ñax ay nitam képp koo xamante ne moom moo fi toogaat ëllëg ci biir na moytu Sénégal takke ci ay loxom ci Omar que bis bu njiitu réew mi euh, tànne euh, candidat wu euh, Benno Bokk Yaakaar pour l'élection présidentielle de 2024 seen coalition bi dafay tas APR aussi dafay tas kenn amatu si yaakaar daal. non man gaw ma ne dafa mën a tas parce que Sénégal xam nga APR nag moom ma ne kon ñun on on on sait nous savons nous réunir malgré nos divisions et nos divergences mais nous savons nous réunir et quand l'essentiel est en danger tout le monde tout le monde se réunisse te instant bi fii xam nañ ne benn affaire moo fi nekk mooy ne le le élection présidentielle lañ nekk nekkuñ élection législative nekkuñ élection élection municipale mais élection présidentielle la donc benn candidat la te ñaa maa ngi ñaan képp koo xamante ne alliance pour la république li nga muy nekk responsable mu nekk militant mu nekk képp ku mën ci doon bonne volonté wala sympathisant saa yi bu président waxee ne diw la na ñëpp na yi jub na ñëpp ànd ci jàpp ci ci combat boobu pour que ci dëgg man yàlla may ñu bu leer ni midi loolu daal moom lay ñaan mais vraiment division man gëm moo ne man je crois fermement que ne tout le président et bu waxee ne diw la ñëpp dinañ nekk ci ginnaawam loolu moom man yaakaar naa ne loolu dina am te am na ci yaakaar à cent pour cent. Euh, beneen euh, aussi euh, ponk ñu gis ne fi ñu toll nii ñu ngi wax ni li nekk ci kaso bi ëpp na mille détenus politiques mille et quelques détenus politiques en tout cas est-ce que yow d'accord nga pour ñu libérer leen comme gars yi ni ñu koy waxee libérer les détenus politiques. xam nga man dama koy wax ma ne ñaar ñi këpp kuy ñaanal nit ñaanal ko ko muy hôpital ak kaso hôpital ak kaso képp kuy ñaanal doomi aadama ñaanal ko yàlla musal ko ci hôpital wala gën kaso soo participer ci sa dem kaso gaaw soo demee na nga assumer ses responsabilités parce que man li may wax pourquoi ñoom ñaawluwuñu woon ñu koy wax ñaawluwuñu bu bu bu opposant yi di wax ne nañu rey Macky Sall nañ ko def ni Samuel Doe nañ ko humilier nañ ko attaqué nañ ko déloger pourquoi ñooñu mosuñoo ñaawlu loolu pourquoi Auchan buñ koy taal gars yi ñaawluñ ko pourquoi station yi buñ koy taal gars yi ñaawluñ ko pourquoi bu ñu yàq BRT gars yi gars yi ñaawluñ ko pourquoi bu ñuy tàgg dagg fibre fibre ca câble li bi comment dirais terre bi gars yi ko pourquoi leneen leneen aussi autre mot yoo xamante ne dafa vision bi mooy mooy yàq Sénégal gars yi ñaawluwuñ loolu tey ñooñu def loolu ñu jàppale ñu ne ne ne justice bi Clément tey ñoom ñu ne dañu ñaan justice indépendant justice su indépendant wu doon du jàpp ñooñu pourquoi ñoom ñu bëgg justice bu indépendant pare bëgg a ñëw di ñaan njëkk justice nañ bàyyi justice yi def liggéeyam képp koo xamante ne dangaa def affaire criminelle délictuelle délinquance ñooñu euh, ak ak vandalisme ñooñu nañ leen jugé li nga xam ne loolu la code pénal bi wax ñu teg leen ko seen kaw parce que nag lu def waxulu ay di njambat képp ku def lox war ko def yoon dal sa kaw looloy dëgg te looloy yoon nañ bàyyi justice mu doxal yoonam parce que yoon ñëpp la fi nekkal ñoom luñ bëgg nag mënu fi nekk su la neex nga def suñu jàppee nga ne non de tëddi politique loolu taxawul loolu ay waxi naxasaan la loolu ay waxi caaxaan la nañ bàyyi seen caaxaan yooyu noonu bàyyi yoon mu def liggéeyam. d' accord de détenu politique y' en a que des délinquants et des criminels qui ont été emprisonnés. kon daa yow d' accord ñu libéré leen benn yoon même bu Clémence de am nañ leen jugé ba noppi daal. non Clémence mooy ne nañ jugé ba pare suñ jugé ba pare président nag yàlla may na ko ay yoo xamante ne mën na def mu gracier mais képp koo xamante ne def nga nañ lay jugé képp ku deful nag lañ la bàyyi nga ñibbi. léegi enquête yaa ngi man je fais croire je je crois au magistrat et au juge gëm naa leen bu baax xam naa ne képp ku def yoon dina dal sa kaw mais képp ko def la ñoom dinañ la bay nga ñibbi ba man xam ko. te gëm naa leen gëm je crois à la justice de mon peuple. d' accord euh, ñu wax si beneen bonk surtout soxal euh, bitim réew Samba Ndong euh, coup d'état yi bari na si sous région bi de gis nga kaaw Burkina y avait Guinée ya ya le Niger bërki démb Gabon ak coup d'état ba fa am mu nekk surtout la famille Bongo après cinquante six ans au pouvoir déjà li xew Gabon noo ko gisee. non man man xam nga man man légaliste la man coup d'état anam ba mu mënti ñëwee man gëwma coup d'état pouvoir moom man lu ma gëm ne urne moo koy joxe expression du peuple la le peuple ñoom ñu dem élection choisir ki nga xam ne moom mooy seen njiit suñ ko choisir nañ ko nangu man loolu laa nangu mais coup d'état mosul régler dara en Afrique dafay yàq dafay gën a naxasal sax parce que saa boo defee coup d'état ci détruit toute une toute une population toute une ethnie tout un peuple tout un parti te loolu baaxul loolu da indi haine te loolu le pouvoir que l'on prend que celui qui joue par l'épée finira par l'épée loolu ñëpp war nañ ko xam képp kuy foowee paaka ci paaka ngay mujjee képp koy dundee ji jàmm nit ñi suy jàmm jàmm lay rey donc loolu nañ ci bàyyi suñu xel éviter def ay coup d'état éviter yi def ay coup d'état coup d'état baaxul ci benn réew Sénégal nag képp ku yéene ay ci sa kopp ci sa kow lay këpp ñu nga wax ñiy wax ne Sénégal épargné wuñ ko épargné wuñ ko ñooñu on les connaît ñi nga xam ne mosuñu bëgg Sénégal ñooñu nga xam ne les forces occultes ñoo nekkoon seen ginnaaw ñoo leen ñoo leen doon poussé pour ñu taal Sénégal ñooñu ñoo ñoo yéene Sénégal ay ba ñuy wax ne coup d'état mënuñ ko épargné Sénégal mais Sénégal xamul loolu te du ko mos a xam parce que fii nag ay maam yu baax lañ fi nekk ñaan fi ñaan yu baax ñaan yooyu yàlla nangu ko donc nañ bàyyi caaxaan yooyu noonu ñun suñ armée bi suñ force de l'ordre man dama leen gëm parce que xam na ne armée bu républicaine lañ yor armée nationale lañ yor armée boo xamante ne lëkkab lu ko yor lëkk lu ko lu ko lu ko soxal mooy le bien-être des Sénégalais donc loolu tax dañ bàyyi caaxaan yooyu li ñuy wax ne ay caaxaan la ay fola ay caxal la Sénégal xamul loolu te du ko mos a am man nag lu may ñaan na ñëpp suudewu pour le bien-être du Sénégal muy nekk société civile muy opposition muy pouvoir ñëpp nañ suudewu bokk ndey bokk bàyyi pour tabax Sénégal man loolay ñaan. kon daa gëm nga ni coup deeta mënu am Sénégal comme ni ko gars yi di xalaatee. man soo ko wax sax c'est chimérique et frivole c'est des pensées chimériques et frivoles yoo xamante ne euh, c'est des même dans les rêves sax ça ne devait même pas arriver en rêve waxtuma nag en réalité donc loolu wax ko sax en réalité ça doit être ça doit être incriminé ça doit être incriminé kenn war ko wax que du wax bu rafet wax ju ñaaw la wax ju salte la wax ju bu tegginiwul la donc ñu ñëpp ñoo ko war a ñaawlu te gëmma ne loolu wara na mën am Sénégal te duma ko mës a gëm. Hmm. ñu gis ne aussi ku koy la déglu. ñu ñu gis ni Samba Ndong aussi euh, coup d'état yu bari ci sous-région bi euh, surtout en Afrique c'est parce que euh, askan wi gisatuñ seen bopp ci ci ci njiitu ci njiitu réewu Afrique yi est-ce que yow d'accord nga ci lool la que duñu xool intérêt wu askan wi mais plutôt dañuy xool intérêt wu France wala leneen daal moo indi coup d'état yooyu ci Afrique est-ce que yow d'accord nga ci thèse boobu. waaw wala déet xam nga ñàkk xam-xam. waaw weesu nga ne président bi. jiw moo koy manipuler yekk xam-xam weesu nga ne état bi état bi moo tax muy rouler état def am autonomie am souveraineté am indépendance am état ay convention lay signé ak ay ak ak ak ay firme loolu nag du état entre état mais c'est état avec des organisations euh, internationales loolu nag su amee euh, waruñ di jaxas xel seen xel nit ñi ba ñooñu di am ay frustration loolu loolu c'est danger te képp koy def xamal ne le mal là que tu souhaites à ton peuple s'abattra à toi, sur, sur, sur, sur ta tête. Euh, chef d'État ne peut être manipulé par un chef d'État par son homologue chef d'État loolu man man loolu laa gëm parce que man dama man étant donc je ne peux pas faire croire aux gens que diw est mani ce type est manipulé kii dañ ko manipulé kii dañ ko manipulé kii dañ ko manipulé voilà kii day roulé pour que loolu amul taxawul te yoo xamante ne teg ci ndodd président de la république parce que le peuple avant tout le président il est conscient qu'il est élu et c'est le peuple qui l'a élu doit être au service de son peuple loolu moom xam naa ne chef d'état bépp bu nekk loolu la nekk mais donc dañuy wax ne kon ñi nga defoon ñi nga xam dañu def coup d'état nga xam ne dañuy opposé wu président boobu la nekk nekk dans d'autres nations xanaa kon ñoom ñoo leen di subir ay information ñoo leen di fournir ay information pour que ñoo ñooñu dañ leen manipuler pour ñu donc loolu tax ma ne leen il faut que ñu ñu regarder sur le rétroviseur waxante dëgg waruñ wax yooyu waruñ ko sax di koy jëmal ci ay président loolu manipulation la kese ak yàq dara mais amul. voilà merci beaucoup Samba Ndao en tout cas maa ngi lay remercier bu baax a baax ci disponibilité bi. merci. Euh, Samba Ndong may fàttali ni membre nga ci Alliance pour la République APR membre également du Haut Conseil des collectivités territoriales merci Samba Ndong c'est vraiment. merci bien madame Moreau merci.